weer waa nii dëng tuuti nii tuuti gisoo ko xoolal suuf ci kaw asamaan si. service de santé lañ doon déglu rek. Eh, eh, eh, anam weer waa ngi nii xoolal ah. wax na dëgg de. wax dëgg weer waa ngi waaye bañ bañ ko weeru koor nag. moom kay nag tey wax na dëgg weer waa ngi nii. yan caama ko daan xool waaye tey kii moo ko gis yan caam yàlla ko yàlla yëg. amiin. auzubillahi mina shaytaan. weeru jàmm sa borom dimbali. taafeero weeru jàmm. taxaw leen taxaw leen taxaw weneen a ngi weneen weneen weer. lan weneen weer a ngi bu mag. weneen lan. weneen lan mooy. bu ndox lan moo tax bu ndox tee ngaa jox sa bopp wàccuwaay bu ndox feeral ci sa ponkalaay bii sa noolay pataay yëpp war nañ koor gii heure bii ngay ndékki lii ñëpp ko mën de lii ñëpp ko mën dañoo gëm yàlla rek lii ñëpp ko waaw kay dan la ëpp sago damaa wër ba ñëw nii dugg fii rek dégg la waaw danaan koor gi yow yow danaa des ginnaaw koor gi yàlla garaaw na de <laughs> ay man sama lamp mi hay ah kàddu bu rëy laa lay jox de kàddu waaw sukkaru koor bu ni mut te nag bu ci teg benn baat nga wax ma rek lépp loo bëgg ma jëndal la ko. yow de da bëgg kër gi yëngu. ah du ko yëngal. yow xamoo ne sama nijaay benn moom mbaay soxlawu ko ci kër gi. teggal loolu ci suuf bu mu ko dégg sax nag. démb xëti mi nga togg ci kër gii. Hmm. atum beles jaañ ma ba léegi lekkuma xëti mu ni mel. xëti mii moom daa divorcé mbaa mu ñaan baat mbaa muy tënj mu. nga roof ko ci cuukeel bi ba ci omi jinjeer gi. kaani gi laaj gi démb li nga jinjeer ci kër gi xam nga man moom damaa bëgg waaye Barça day moroomum Real. xam nga ko est-ce que ah moo kii moom du xëdd moom moo tax day yendoo ci patu. moo tax mën a xarit rek. koor gi day yendoo ci patu laa la wax man mi nekk ak moom kay maa ko mën a wax. xanaa gisoo bu ndogu li taaju. waaw ni mu di mel ni mel sa lekk. du lekk lu baax. waaw eh, bal bi ñoo ko dàq nag ah, la ko ragal. muy si jàmm baax naka voyage bi. waaye gis nga fa moom dama ko ñëw rek booy. Mm. waaw muy métti lool ñuy ñun. yéen ki seddaay bi la. waaye gis nga temps yi moom mu ngi xaw a sedd. mais moom ñun gis nga moom Sénégal dafa tàng ak koor gi nii. moom ah. def naa ne dana métti de. ii sax ko def trop sax koor ren gi nan la garaaw de. dem leen ngeen jégalu ndax yomal xiyaam kat nga tooñ suñu borom nee na bàkkaar yi lu mu réeréer bay laal asamaan bul bul naagu ci dinaa jéggal. ah waaye la fay taxal nit ñi ëllëg ak lu leen fa mooy tooñ dañuy tooñ seen diggante ak seen morom. jaam yeeg jaam yi. waaw jaam contre jaam. weer nit ci jaam. sàggi suturaam tuumaal yor sa téléphone ne ci sa ruq di saala ku la ëpp ku la mag saala kilifa kenn amatul kenn kenn lu ñu wax waaye mu def. kër gi benn baata bi am. kër moom ba baa buftu bi di wal. waxtaan na neex borom kër ga way wi këpp gaal kenn da ko ci teres te man nugum ku ma xam-xam ni du ma far fii far fee sama royal moom éliminé te moom mi barsaam day deñ ndax man ak moom sax Barça day deñ kër gi moo moo ko nag mbay xam nga ne loolu bu wàcce ba bu wàcce ba ma war a attaque bool bi ah. nugum nugum ak bool bi nugum bool bi bool bi dee na rek ngay dégg hmm? nugum ak bool bi may attaque téye ko gauche hmm. dina ko droite lu mu gàtt gàtt turu yàlla quarante nag moom dinaa ko lekk sa ay loolu koor gii tamit wax dëgg yàlla day weeru ngëneel boo xam ni hmm. dañ ci war a profité di jéggale di ci profité tamit di yokk suñ jaamu yàlla yi ndax kat koor du ko mukk te koor du jóg ki tedd sëñ Touba lam ko waxoon ci axeera day loo ci ñaan may la loo ci jëkkalu mu baal ci la ngëneel yi tàbbee ci la xewal yi yokkoo shahru ramadan